alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah bokk yi ñu bokk sant borom bi subhaanahu wa taala seera namul benn buur bu mën a jaamu bu dul moom noo ngi baalu àq ñépp te di leen baalu àq tey ñaan buur bi subhaanahu wa taala mu bokk ñu jéggal ñun ñëpp bokk yi laata ñuy dugg ci sunu xutba ñu andi ak laabire ci li xew ci réew mi ku ne gis na démb Dakaaroog Mbakkeeg Ndarak Ziguinchor ak fu ne metti woon na ci diggante ndaw ñi ak takk der yi te dara waralu ko lu dul yaane ma wala mànne la ñuy indi ak laabire goo xam ne nag njiitum réew mi ci lañ koy tàmbalee ci moom liñ koy laabire mooy na bàyyi xel ne moom mi jiite réew mi réew mi dafa jaar ci ay loxo ba agsi ci ay loxoom ca day jóge ci ay loxo ci ay loxoom dem ci yeneen loxo ñi fi jaar de ñu ci bari biñ fi jógee image yu mel nii fi am yin ci fa jot a fekke gisuñu ko fi woon baa kon bariwu fi woon ca démb ak ku gis li xew ci Sénégal image yu ñaaw ñoo fi xew ca image yi wër na àddina bi réew mi ne dana woon réewum jàmmal ak teraanga waaye daa mel ne loolu mi ngi bëgg a yàqu daa mel ne loolu mi ngi bëgg a yàqu kon na bàyyi xel ne président Senghor jaar na fi président Abdou juuf jaar na fi président Abdoulaye Wade jaar na fi ba mu egsi ci ay loxoom dafiy jóge beneen président nekk fi ala kulli xaal loolu su ko bàyyi xel lii xew léeg-léegi ca mën cee yëkkati kàddoom mbir mi mbir mi di sedd loolu wërteefam la mu di ko def su ko defee lu war lu war la su ko defit lu war la kon ñoo ngi koy jottali suñu kàddu su ci manee wax na ci wax ngir li xew ca jamono jamono ji ñu toll ku ne xam ne bu demee ba ay bal di jóg ñuy gaañ ay doomu aadama jàpp ci ñaar téeméeri nit ak nangam yóbbu leen ci biir koso bi loolee jàmmaarloo gu metti la. beneen laabire bi maa ngi koy jëmale ci takk der yi takk der yi nan bàyyi xel ne dun ay burkina dun ay malien dun ay gambien dun ay ivoirien ay sénégalais yoo xam ne dañuy jàmmaroog ñoo xam ne ñoo bokk drapeau senegal kon daray àdduna ñoom warul leen a jël wala daray àdduna warutax tax ngi piite ci barab ba tax ñuy mën a gaañ ay ay sénégalais te mu wér ne ne fu mën a féete ci réew mi bisa ngi ñëw ka tax ñuy def loola ñoom kooku dana fi jóge keneen ñëw fii ci loo xam ne mën na leen fi jële ñoom wala la leen mën a xew kon maa ngi dénk di leen dénk ñoom takk der yi nan bàyyi xel ne ndaw ñi ni jàmmaarloo ñoom ñoo yem ci réew mi ay sénégalais ñu ay sénégalais seeni doom a fi nekk ñoom takk der yi ak seeni soxna seeni baay ak seeni yaay ndaw ñeeg seeni doom ak seeni soxna ak seeni baay ak seeni yaay fi nekk kon nan delleesuwaat jàmm ci réew mi moo gën image su ñaawee ñu di ko gis beneen bi ci des beneen laabiri bi ci des maa ngi koy jëmale ci ndaw ñi ndaw ñi nan bàyyi xel ne am réew yàq defaru ko taal defaru ko toj defaru ko kenn ku ci nekk sañ ngaa bëgg ka la neex waaye fexeel ba am carte d'identité rek bu waxtu wata jotee nga seet ka nga neex nga wateel ko bul yàq bul toj bul dóore bul def dara yàlla moom moom nguur mooy seet ku ko neex mu jox ko waaye suñu borom it mooy fal nit ba nit noppi mu jàll la fale ko ancien président dégg ngeen ko ancien ministre ancien maire yi ancien nangam benn ancien dong mu amul muy ancien imam doo ko dégg mukk ci kaw suuf ci yi yëpp da nga dégg ancien qul illahuma malikul mulk tuutil mulka man tasha wa tanziul mulka min man tasha wa tuissu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika alxayr innaka ala kulli shay'in qadir yàlla képp moom am nguur mooy seet ku ko jox ku jàpp na li la jox na buum ak buum mi rey moom dong moo tax bisa ngi ñëw da nga wàcc ca nguur ga kon maa ngi koy maa ngi koy laabire yoo xam ne maa ngi koy jëmale ci ñooñu mën a beneen bi ci des ñi war a wax donte waxoon nan cay ay kilifa nan waxaat yonent bi saa ma nee na woon ashaakitu an il xaqi seytaanun aqras kii nopp ci dëgg seytaana su luuma la seytaana su su su luuma mooy koo xam ne seytaana nga boo mun a wax kon nag kii war a wax ma dafa war a wax donte la ñuy wax it ñam koy waxal du ñu ko dégg mee na war a wax wax ñi war a wax kon wax jot na képp ku waxu woon nanga wax ku waxoon it na nga wax ndax lii suñ ko bàyyee di ko seetaat nii mën naa indi gën a loraange gu bari ca nag la borom xam la borom xam-xam ba waxoon rek na ci dëkk ñuy mooy yàlla nga ne sama yoon nekku ci bu mbugalum yàlla dikkee du la fa bàyyi yow man woon sama yoon nekku ci faaw faw suñ borom du la du la fa mbugal ma du la fa bàyyi ca réew mi ku ci amul doom am nga ci maam am nga ci bajjan am nga ci mbokk am ci nangam ak nangam kon nag ñi war a wax nan wax ku waxoon na nga waxaat fu tooñ ñekk ñu ne fii moo tooñ yow mi tooñ bàyyil tooñ fu tooñ ñekkul ñu ne fii tooñ undur axaaka zaliman aw mazluma la yonent bi salaa salaam wax kon loolu laa bire gu may ubbee xutba bi di ko jëmale ci ñooñu ma wax président réew meeg opposition beeg kilifa yeeg ndaw ñeeg ñépp maa ngi la ñuy laabiré sama kaddu yooyu yàlla na yàlla dogal ñu dégg ko ca mën koo jëfee mbokk yi sunu xutba tey mooy waajtaayu weeru koor ñu ngi séentu gan gu màgg goo xam ne fan yu néew danan egsi ci moom muy gan goo xam ne dañ koy ndokkeel ci sunuy jëmm di ko ndokkeel ci sunuy ruu di ko ndokkeel ci sunuy doxalin ak sunuy jëfalin di wax la sëñ Tuubaa waxoon rek yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abada mukarraman bi qirat taati wa sadad gan googu nag liñ koy ganalee mooy jaamu yàlla ak ak jub moom lañ koy ganalee gan googu nag bokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon weeru koor mi ngi ñëw ci seen kanam muy weeru màgg wu tedd yàlla farataal na ci yéen weer woowu képp ku ko man bu ñëwee na nga woor yàlla nag tegul benn bakkan lu mënut laa yukallifu llahu nafs illa wusaha kon képp koo xam ne weer bi ñëw na nga mën a woor ci amoo benn ngant bu la tee woor ci yow nga woor weeru koor daa di wax na weer woowu kër saa yu egsee suñu borom dana ubbi bunte àjjana yépp tëj bunte sawara yépp jéng seytaane waaye weer woowu guddee ngi ci goo xam ne moo gën ci guddi yi daan na képp ku yàlla xañ nag yiw wa mooy yiwu weer waag yiw guddi wa suñ borom xañ na la àddina ak alaaxira weer woowu moo nekk suñ kanam bokk yi weer woowu nag jullit bu ci nekk war ngaa am ak dogu ci jéem ko préparé ci ay topp mooy ay ay jaamu ay topp mooy ay jëf yu baax yu sell bi ci jiitu mooy yéene am yéene yi bu la fi yàlla dogalee weer yi fekk la fi nam la fi daan fekk nga am yéene wor ko bokk yi ñaata ci ay doomu aadama ñoo fekk woon weeru kooru daaw ren jii ñu ngi ci biir suuf yow ngay dund ba weer li des sa weer weeg sa digganteeg weer yi ay semaines yu néew maanaam ay fan yu néew la matul sax semaine wala ca la yem kenn ku nekk di ñaan yàlla fekk koog jàmm tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin rikk bu la yàlla may ak wér ak kattan na ko jéem a war ñi faatu daaw ba weer fekkaatu leen fi kat bëgg faatu taxul ñu faatu seenu dunda jeex ñu dem kon ba weer yi teroo na góor lu am pas-pas bu war ko na xamoo ba xam déwén dana la fekk wala du fekk ndax déwén xamoo ba xam daan la fekk du la fekk yàlla moom moo bind bakkandi ca lu ko soob rek noonu lay def kon ku yàlla may kàttan may la wér ngay dund ba ren ba déwén bàyyil xel it ne soo waroon a dund ñaar fukki at am at manqué na ci yow ay weer manqué na ci yow ay fan manqué na ci yow ci sa dund bu yàlla dikkee na nga bu yàlla dogaloon nga sàggan ca at moomee fan yooyu ak weer yooyu weer wi dellusiwaat na nga am pas-pasu xol bu sell ak yéene ju sell fas yéenee woor weer ca ni nga xam ne noonu la ko sant lislaam santaane muy gëm gu mat sëkk weer woowu nag bokk ci arkaanul islaam bunya al ala xamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah iqaami salaat itaayi zakat shawm ramadan kon ponk la ci ponk lislaam yi waaye tamit nga fas yéenee am yéeney sàkk yoolub weeru koor sok sàkk yoon ci biir weeru koor foo ci mi tàggat sa bopp ci julli mbooloo ci ay waxtoom di dem ci jàkka yi wala ci barab yi nga xam ne ay mbooloo ngi ci ngay góor-góorlu ngir tàggat sa bopp balaa weer we jot nga mën di fekk julli mbooloo waaye di xéer ci jamono ñuy toll nag ci di naafile guddi loo mën ci ay rakka nga di ko def di naafile guddi ndax damay wax toujours ne kumte koor jàkka yi danaan fees waaye balaa mat une semaine jàkka yi daan ne wéy dootoo ca gis kenn kon jéem a tàmmal sa bopp balaa bis boobu ñëw lu am solo la waaye tamit nga fex yéene tàggat sa bakkan ci jàng alquran boo doon jàng benn isib ca mënoo koo yokk nga lu ca boo doon jàng ñaari isib nga lu ca boo doon jàng ñetti isib nga lu ca boo ko mënee yokk moo gën soo ko mënta yokk fexeel ba li nga ciy jàng ci alquran bu mu dañ am na ci ñoo xam ne bala ñoo jël téere bi yàlla bii di ko tiim di jàng weeru koor daa ñëw nga gis leen ci mbedd yeeg ci nangam foo leen fekk gis leen yor jukk bi alquran ci weer wi la wàcc dëgg la loo ci mën yokk waaye day téere boo xam ne bis su ci nekk nit ki da cee war a tàggat boppam di ci gën a góor góorlu weer wi bokk na ci liñ koy préparé mooy di tuubal sa boroom ci bépp bàkkaar boo xam ne jëfoon nga ko ci weeru ñëwagul na bàkkaar yi nga xam ne mënul tudde àllamam muy bàkkaaru ndaw yi ak bépp mooy goo xam ne def nga ko muy naqar yàlla nga jëm koo tuubal sa borom waajale ko weeru koor rek bokk na ci liñ koy waajale bokk yi mooy wattu saw làmmiñ ci ay ñaawteef lu mel ne jëw képp ku ko daan def ca weeru di ko gut fexeel ba bàyyi jëw sa moroom lu mel ne rambaaj ba nga fexe bàyyi rambaaje saw askan wala say bokk wala yu mel noonu lu mel ne wax ju ñaaw moo xam saaga la moo xam ŋàññi moo xam ne ak yeneen nga fas yéene loolu tàggat ko sa jëmm balaa weer weer dikk loola dañ ci yow ak yeneen yu mel yu mel ne yooyu ma tudd yooyu ma tudd bokk yi yàlla suñu borom soxlawut ci aji wor ji ñàkk a lekk ñàkk naan dong lim soxla ci moom mooy nit ki saa yi wooree na fexe ba juróom-ñaari cër yi benn bu ci nekk woor fa sawmu an yasuuma kullu udwin an kulli ma yufdi fatan daal mooy kenn ku nekk ci ñun fexe ba sa juróom-ñaari cër yépp na wor bët bi na woor làmmiñ bi na woor nopp bi na woor loxo bi na woor tànk bi na woor biir bi na woor rawatina garam place ñuy toog ci garam place yi ci marché yi nan fexe damm seen gis ba bañ seen bët yi bañ di xool li xaraam wala saa yuñ gisee lu xaraam seen bët tarfat muy lu xaraam nan ko jéem a dumo yi ak ñi nga xam ne dañuy nekk ci internet beeg facebook beeg yu mel noonu di seetaan film yeeg yu mel noonu ak ci théâtre yi nga xam ne dañ koy teg ci weeru koor ak geneen yu mel noonu ngeen fexe ba seeni bët du xool jëm ci lu xaraam mbokk yi koor du ñàkk lekk ak ñàkk naan rek yooyu ma la wax yëpp dafa war a woor préparé kenn ku ci nekk préparé sa jëmm ba yooyu yëpp nga mën koo maytandiku bokk yi lu am solo la bokk yi koor nag du ñàkk lekk du ñàkk naan yonte bi sans sama nee na képp koo xam ne da ngaa woor bàyyi woo waxi caaxaan waxi mbórant nee na yàlla amul soxla sa ñàkk lekk gekk ñàkk naan googu fan yi ñu fan yi ngeen fan yi ñu jublu yéen a ngi dégg ñi nga xam ne dañuy théâtre ñi ngi publicité seen i théâtre yi ñu war a def ci koor gi am na ci ndaw ñoo xam ne bu nee salaamaaleykum ca timis ja ña nga jubali tele ba duñ tala ñaan duñ tala lekk duñ tala def dara bokk yooyu yëpp ay fi caaxaan la ca waxtu yi ñu koy teg toujours rek boo ko dee xool waxtu jaamu yàlla lay doon seen théâtre yu bon yii ca yonent bi sansama nee na benn baat nga nga wax ko jubluwoo ci lu dul reetaan loo nit boo léegi da nga xala maay sa war a juróom-ñaar fukki newet ci biir sa war a théâtre mooy la wax ngay reetaan ak nee na benn baat booy wax jubluwa ci lu du reetaan loo doomu aadama yi nee boo léegee da nga ko xalambaay sa war a juróom-ñaar fukki nawet mbokk yi kon na man koor man yàlla man maa moom ni ko santaane maa koy fayal ñu bàyyi xel ba fay googu ko suñu di fay su àllëgee loolu jural ñu njariñ bokk yi kon fi ñu mujjantale mooy ñu xam ne koor weeru muñ la weeru rafetal la weeru yërmande la weeru jéggade la weeru ñaan la weeru alquran la weeru tuub la weeru goro nit ki sawara la weer la woo xam ne nit ñu baax ñi fi jaaroon dan daan ñaan bor bu subhanahu wa taala juróom benn weer ngir yàlla fekkale leen weeru koor juróom benn weer dañ daan toog juróom benn weer naan yàlla nañu yàlla fekkale waat weeru koor naan daan ñaan ni benn weer suñu borom nangu leen seen jaamu yàlla kon yàlla nu yàlla dafa dégg ak topp ci yàlla nangul ñu suñu jaamu yàlla allahuma inna nasaluka ma ixtiraabi shahri ramadan an tuyassira lal qiyaama wa siyaama wa xaddul bashar wa hifsi lisaan ya rabbal alamin allahuma ainna fi shahri ramadan ala wa ala fi'li alxayrat ya karim rabbana fi istiqbali fi istiqbali ramadan nasaluka dawama alrahma walmaghfira wa nasaluka fi hada alshahri alhimmatu alaliya wa ruhi almutajaddida lilibadati allahuma ijcalna min allasina sawfa tactaqu riqabahum min alniran fi hada alshahri alfadil allahuma اجعلنا من المسلمين الذين يحسنون استقبال شهر رمضان المبارك ربنا ixfir lana zunubana wa israafana fi amrina tawaffana muslimin walhiqna bisalihin allahuma ainna fi sahri ramadan ala alsiyam والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر شعبان واجعلنا من الذين يبلغون شهر رمضان بحرمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم astaghfirullah lakum wa li saa'iril muslimina amin